bi may jeexale sama kàddu nag gannaaw bu ma nuyee kilifa yi fi ne yépp di ci jiital Cheikh Ahmad Tidiane ñang bu suñu bàyyi alxaaji Tidiane ñan di ci teg say sekk bi toog nga xam ne moom it ci ñun la bokk waaw ñu sant ñëpp ci gàmmu gi nga xam ne moo weesu jiital ci cant gi ak ngërëm li le xalif général de Tidiane sëriñ Babacar Sy Mansour yal na ko yàlla dolli wér yal na ko yàlla dolli kattan yal na ko yàlla bàyyi ci kanamu njaboot gi ak usra malikiya bi yépp ba lim bëgg mottali ko ci diine ji ak tariqa bi ak mbokk gi yàlla defal ko mu mottali ko ku am fayda nag maa ngi koy wax ci dëj bi keroog nee na bu ma banaa may dee ngeen naan ngeen gunge gunge ñu ba ci kanam après mu ne bu ñu leen gungee ba ci kanam après ñun dañuy dem yéen ngeen des fi demuñu fenn mu ne fii la ñuy toog ak yéen fenn lañ demul wax na dëgg di léeg nga di gannaaw gungee ñu ba ca kanam après moom mu dem yow nga toog ñàkk fay dawee suul loolu bi ah, moom kañ ne nañ gunge wante rek ba ca kanam yàlla nag lu mu dogal ñu nangu waaye nañ gunge wante ba ca kanam hmm? yal na yàlla def loolu yal yàlla def loolu yal yàlla def loolu ak euh, rakkam yépp dalee ci porte parole Seydi Hadji Malick si bu Seydi Aboubacar si bu Cheikhul Hadji Malick jaar ci ay rakkam Serigne Hadji Malick si Maodo bu Cheikhul Hadji Abdoul Aziz bu Seydul Hadji Malick ak Serigne Babacar si Abdoul Aziz bu Seydil Hadji ma Serigne Abdoul Aziz Dabakh bu Cheikhul Hadji Malick ak Seydi Mouhamadul Mansour bu Cheikhul Hadji Abdoul Aziz Dabakh bu Seydul Hadji Malick ak Serigne. Mansour si Jamil bu Seydi Mouhamadul Moustapha si Jamil Seydi Aboubacar si bu Cheikhul Xaaji Malik ak Seydi Mouhamadul Mansour waaw ak Serigne Cheikh Tidiane si bu Seydi Mouhamadul Mansour borom daara yi bu Seydi Aboubacar si bu Cheikhul Xaaji Malik fa tabarakallahu ak euh, Seydi Xaaji Malik muy Seydi Aboubacar muy Pape Aida bu Cheikh Al Xaaji Abdoul Aziz Al Amin bu Seydi Aboubacar si bu Cheikhul Xaaji Malik ak njaboot gi yëpp si Seydi Hadj Malick gi yëpp ak mboolem ñiñ bokkal réew mi di seen naataango ay xulafa dale ko ci kii nga xam ne mu ngi béy waaram lu mu mën baax lool muy sëriñ Muntaqa Bachiru bu cheikhul xadim di cheikhul xadim it boole ci xalif général de murit yal na yàlla dolli taxawaayam wax dëgg yàlla mu ngi béy lu mu mën ci diine ji mu ngi bay lu mu mën ci tarixa yi ànd nekk benn nit ñi nag ñoo bëggatul ku leen boole ñu nekk benn waaye moom mu ngi ci de mu ngi ci bu baax yal na yàlla kattanal ko dolli ko wér waaye ma jaar sama bunt ci tuubaan nag tey muy sëñ Abdou Lahad buy sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo ko soxnaam ñuy sama wëllëre tabaarakallaahu ah ñu sopp ma lool ma sopp leen lool ak mboolem xalifa yi ci Sénégal yépp xalifa Njaasaan Ceneba Laayeen Medina Gunaas Sookoon euh, alaaji Ahmad Baro Njëgéen alaaji Ahmad Baro Cees ñépp rek bàyyiwuñ kenn yal na yàlla tàppe xol yi ràbbaske ko def ko muy benn ñuy yëkkatee ndoo di tegandoo ma profitoo ci nag wax dëgg yàlla sant mboolem ñi ma sopp ñépp ma beral nuyoo nag xaasa sama nijaay sama xarit sama sëriñ di sëriñ Moustapha si responsable moral mustarshidina wal mustarshidaati moo ma invité woon ren wax dëgg yàlla fa la ñu gàmmoo ci moom ñu accueillir ñu niñ koy accueillir moom wax dëgg yàlla ña ma àndaloon ñépp seede nañ ko bunt ba muy jaar fa lañ ma jaarale loolu nag maa ngi ciy sant tous les responsables di daayira mustarshidina wal mustarshidaati Cheikh Tidiane ba ci suuf ñépp maa ngi leen ciy sant rawati nag Cheikh Kouta bi fiy xadara ak Mansour Guèye mii ndax bi may ñëw dama leen waxoon ne 23h30 dina ma fa fekk yàlla nattu ma ma jël ilaa Touba bi gaaw na ba bi may dugg Tiwaawan bi ma duggee Tiwaawan ma woo leen bi may ñëw nag ma jaawale mbedd bi ma waroon jaar dem ci course ba ndax bi ma ñëwee ba xabru Serigne Cheikh dama waroon a jël gauche man ma jël droite bunti kër sëriñ si Sidi Ahmed si bu Cheikhul Hadj Abdoul Aziz Dabakh ma fekk ñaari oto boo paasee bunti kër gi tuuti ñaari oto yu taxaw ci voie bi ngay demee mënatumaa dem voie ñëw bi rek moo fa des ah Serigne si yàlla may na leen di. bi waa ji ñëwee xool ma ne ma fii fi ngay jaan mënoo fi jaar ma ne ko xoolal sama pare-brise bi fekk sëñ Moustapha dañ ma joxoon laissez-passer mu xool ko ne ma waaw c'est normal ma ne ko bi ci des sëñ Moustapha bëgguma mu jiitu ma tant ba de mu dindi barrage bi waaye ma dem fekk ñaari oto yi taxaw Mansour mii laa woo ak Cheikh Kouta ñoo dawee ca course ba ba xabru Serigne Cheikh Mansour Guèye bii ak Cheikh Kouta te Cheikh Kouta gis bi neexut. wallahi yéen ñëpp xam ngeen ko daf fiy ñëw xadara gis bi neexul waaye itti ji ci moom man ma masuma gis nit ku mel noonu bi mu ñëwee ba yegg si ma ne ko bàyyil Mansour daw dem ñibbi waaye yow kaay dugg ci oto bi ñu box boxloo mu des nag pour génn foofu dem wuy yiite yàlla tax laay wax de istajibu lillahi wa li ak am solo iza daakum lima yuhyikum ma ne tey rek fen day bariwul lu ma koy def waaye xam naa ne tey dinaa ko def ndax 23 heures léegi da jot na te xam naa ne fii ak course ba moom 30 minutes yi moom góob ma ne mën naa ko dana ëpp trent minutes ndax embouteillage bi benn policier auto police ñëw taxaw ci sama kanam waa ji wàcc li may puusal puusal commissaire la ma ne ko waaw ne ko commissaire la waaye may commissaire yàlla laa di na ma dimbale ma dem rek. ma ne ko moom commissaire u àddina la waaye ne ko man commissaire u yàlla laa moom policier bi di ree mujj gi ma ne ko kaay mu ñëw ma ne ko xam nga ñaari oto yi boo fi naree nekk di wër seen borom bër set dañu la dut faale sax boo waxoon numéro yi duñ la faale xamoo fuñ nekk ci biir Tiwaawan ma ne ko xam nga nooy def bloqueel angle bi man ñetti oto laa ñaari oto laa àndal ak sama bos boo bloqué angle bi ma génn su ma génnee voie bi dana libre mu ne ma wax nga dëgg de dem bloqué angle bi mook Mansour ma génn ak yeneen ñaari oto yi ma àndaloon waa ji bàyyi fa commissaire di ma xàllal ba ci course ba wallahi wa waxuma ko xàllal ma waxuma ko dara moom daal bàyyi na fa commissaire moom di ma xàllal ba ci biir course bi ba ma dugg ak sama oto mu door a wëññeeku bi ma deggee bi yeggee ba protocole bi dugal ma ba ma dugg ba toog 23 heures 29 minutes 23 heures 29 minutes pile laa toog ci fauteuil bi ñu ma teg ma xool ne alhamdulilah. 77 du chiffre la bàyyil benn set bi ba xam nga def set rek ne 600 nangam wala ngay tàppe sama sama numéro téléphone 77 la xam nga 158 41 41 neel set rek 158 41 41 bi xam ndax di nga ma jot. foog nga indi 77 indi 158 chiffre boo tappee rek am na xutbu bu mu branché ci moom tur bu yàlla booy laal rek chiffre boo araf boo tudd rek am na xutbu bu jóg taxaw di laaj cëram mu ngi mel ni ba Maodo ne alaa yaa rasulallahi 124 mille yonent yëpp a wuyu ndax yàllaa leen wax ne bu Maodo wootee rek wuyu leen yépp taxaw mu ne déedéet waxuma leen bari ngeen waaye baax na jéggal naa leen ñu ne ko duñ duñ duggaat ci suñ bàmmeel yi te waxoo ñu kan la de mu ne yaa afdalal wara yow mi leen gën ba gën ku leen gën yow laa wax sallallahu alayhi wa ñépp dem tëdd mu wax ak yonent bi fa nahnu fi diqin shadidil tarakumi fa nahnu fi diqin wa lam narju farijan si wallahi wal hadi li sublil makarimi ci suuf ci suuf la ko doon wax nag yonent bee ko biral moo tax mbay doon ne yonent bi dafa ne allo yow yonent bi allo yaa rasulallah allo mooy ala boo décroché sa téléphone la allo ki la wooy lu muy allo bu déggee baat bi door a wax asalaamaaleykum bu dee tubaab sax yooyu du koy fekk allo ça comment vas-tu ça va bien oui na mu di ko ko riimeel nag fahaa nahnu fi diqin shadidil tarakumi fahaa nahnu fi diqin walam narju fariyan siwallaahi walhaadi li sublil makaarimi sadaqta ala ma qulta fi awdi diinina gariban kama fil bad yaa xayra raahimi yooyu yëpp yonent bee ko moom di badaa gariban wa sayaudu gariban tuuba lil gurabaa yooyu la indi woy ko waaw kama fil bad yaa xayra raahimi ilaahi fajal ahlana ahla gurbatin wa ahla tibaa'i sunnatin fi tarahumi xam na ne yonent baa ngi toog yàllaa nga fa moo tax mu ne ilaahi fajal ahlana ahla xurbatin wa ahla tibaai sunnatin fi taraxami naaddu aleyha bi nawajisi mislama bihi qaala fi isa in nadratu hashimi soo ñu ko joxee danañ ko matt ci dégg yu duñ ko bàyyi nadratu hashimi yow mii lay wax yaay nadratu hashimi koñu ko hashim loolu lay fii waaw nadratu hashimi ah fii noonu la ko ko yonent bi noonu la ko ko Maodo riimeele fa nahnu fi diqin shadidil taraakumi fa nahnu fi diqin walam narju farijan si wallaahi walhaadi li subli lmakarimi saddaqta ala ma qulta fi awdi diinina gariban kama fi lbadi ya xayra rahimi ilahi fajalah lana ahla gurbatin wa ahla tibaai sunnatin fi tarahumi na addu alayha bi nawajisi boo ñu ko defalee na addu alayha bi nawajisi misla ma ma qaala bihi nadratul haashimi door koo joxoñ naouzu billahi min sharri kuféeri wa min sharri nasaari wa min sharri salaatin yooyu yëpp day yàqu njaboot moo tax mu teewal ko naouzu billahi min sharri kuféeri wa min sharri nasaari wa min sharri salaatin wa min wazirin wa jinnin suma ziqadin fammin wa aynin wa iinin wa shayatin wa daalimin wa munaafiqin wa zi xasadin wa man tafassaqa yaa rahmaanu yonent bi ne ko taxawal mu ne najjini oh. min an nasaara wa man xafoo tariqahu يا الله يا حي يا من قال ادعوني إني دعوتك ذا خوف وعينك فخذ بيدي يا جائل الحال بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا جائل الحال بين الكاف والنون mu ne ku am kilifa da ngay jaar ci sa kilifa waatul buyuta min abwaabiha yaa cheikhana Ahmada Tijaani maljaana alal wasaa'ili lirahmaani man jaana haza zamanu zamanun haala jumlatana fi kulli yawmin bi ma naxshaahu yaxshaana te yow mii lañ ko yaakaar wa antumul xisnu lu tax waxul ko wa antal xisnu wa antum yow ak yonent beeg yàlla alxisnu wa antumul xisnu lu mu ca teg ah fii ah wa antumul xisnu fii cheyin nu xaadiruhu bi kastaxasna bi ma narjuhu ma kaana ne leen fa teggati nag yaa awalan yaa axiran yaa yaa zahira nawwir basaira abdika almutadallili lu tax laa yabtaliina allahu jalla jalaaluhu bi baliyati l iraadi an zaaka alwali cheikhuna tijaani an zaaka alwali moo tax mu bàyyi fa cheikh dawaat ca yàlla yaa awalan yow mi fi jiitu ñëpp te kenn mosu la fee jiitu te du la fi jiitu yaa aaxiran yow mi fiy mujj bu ñëpp demee bu lépp jeexee yaa zahira yow mi ne fang ba kenn du la jeex xam nga lu tax indiwul yaa baatina affaire biir la moo tax mu asaf ko yaa awalan yaa axiran yaa zahira yàlla ne ko loo bëgg mu ne ko nawwir basaira abdika almutadallil leeralal sa gis gisu jaam bu tuuti bii bu toroxlu bii mu ne ko loo bëgg ma leeralal la ko mu ne laa yabtalina allahu jalla jalaaluhu maa ngi lay ñaan yow mi nga xam ne yaa màgg sa màgg bokk ko kenn bi baliyati ci ŋàññe iraadi ak dëddu an zaakal wali yi ci wali bu rëy bii ñuy wax Cheikhuna yi yàlla bu ma ko ŋàññ yàlla bu ma ko dëddu bi bi ba liyeeti li xaadim bi ba liyeeti li iraadi an zaakal wali lii la ah. bi ba liyeeti li iraadi an zaakal wali moo tax mu ne amaatana allahu ala diini nabi wa xubbi cheikhina al imaami tayibi amatana allahu ala diini nabi wa xubbi cheikhina al imaami tayyib boo demee ca beneen réew kii ba mu ne amina amina stajib do ana wala tuxayyib sayidi du yàlla de yonent bi wala tuxayyib sayidi yow sama sang rajaa ana yaakaar gi ma la yaakaar xaadim lillahi wa rasul xaadim yal na yàlla defal ñu sutura yal na yàlla defal sutura ah lii de kenn mënu ci dara sëñ Abdoul Ahad kenn mënu ci dara am xaadim muy def yëfam moom da nga koy bàyyi rek waaw waaw yàlla yal na yàlla dolli sutura xam nga dama la wax dinaa la jox ñetti mbubb léegi dinaa ci boole ñetti mbaxana ak kaala ndax yow mii moom ku yebu mbaxana la kaala la rek yal yàlla dolli sutura ñu bokk jàng faatiha te julli gee nag ñu julli gee ñu bokk jàng faatiha ah, lii dara dàqu ko Sidi Ahmed sëñ Sidi lii dara dàq ko am nga lii lii sëñ Babacar eh, libaas ah, wax ma lu dàq lii ah man de xaw ma ko lii lu ko dax ay jullit yu toog di bëggee seen borom ak seenub yonent ba waxtu wi ah ku leen yéenewul yiw yàlla yéene na leen yiw ku leen yéenewul yiw yàlla yéene na leen yiw yiw nag kenn du ko yàkkamti ndax mu ngi ci yoon yiw kenn du ko yàkkamti bu yegsee rek nga xam ne yegsi na waaw yiw kenn du ko yàkkamti bu yegsee rek nga xam ne yegsi na yàlla na yegseeg jàmm ñu bokk ko ñun ñépp nag ci ànd bu neex lii dara dàq ko man su ma sañoon yii rek ay am lii dara dàq ko xaadim nekk fii sëñ Abdou Lahad nekk fële te mu wër leen ne fii barabu Cheikhouna Tidiane la ah, bu leen neexoon duñ fi ñëw heure bii man nañ ñëw beneen heure boo xam ne danañ ma fi fekk te du heure u kon li tax ñu dàkk àjjuma ba ñëw fi seen mbaax la rek waaye waru warule waaye nag eh, liñ fiy dégg moo tax ñu ñëw ah, fii de incha allahu kenn du fi dégg kuy ŋàññi kenn incha allah su ma fi nekkee ak su ma fi newul nag ndax ñi ma fiy wutu dale ci imaam Youssou Guèye dale ci eh, ustaz Sidi Ahmed Mbay bu Chérif Ibrahima Aydara Tijaani ba ci ustaz Jaw bi Camara bi ak keneen ku fi ñëw ñu teralee la nga waxtaan fii moom xam naa ni ku repp ba di fi wax liy ŋàññi nit sax am nag ñi ma fi xam ñoo xam ne buñ la xoolee rek nga noppi sow mii ci la bokk man mën na ma fi bañ a fekk wala Sayid Géey bu la xoolee rek nga noppi moom boo noppi wutit mu jóg ne la saaway waay ñu jàng faatiha moom mooy tuurum kër gi li sëriñ Mansour borom daara ji waxoon ndeysaan góor gi jiite maa ngi koy fàttaliku bu Cees bokk na ci gàmm yi mujj ñëw Eh, Tiwaawan keroog maa ngi toog nii moo toog ci sama wet ak Mansour bii ci eh, zawiya sëñ Babacar si bale ca Tiwaawan jumaa sëñ Babacar borom daara ji toog nii ci kaw man ma toog ci tànkam yi tabaarakallaahu ci yu mu jëm yi ba ni mu génnaat dina fa ay gàmmoo yàlla def keroog maa ngi toog nii ci suufi tànkam yi ustaas jiite toog si Abdul Amin toog nale comme nii xaadim di def rek oustaz jiite bëgg a wax am ku koy femm sëñ Mansour ne ko bàyyi ko xanaa xamoon ne jiite mooy tuurum kër gi lu ko neex na wax. waaye xatimul xatim fi Dakar. tabaarakallah. su ko defee ñu jàng Fatiha. ñu jàng Fatiha jàng ayatul kursi jàng suratul ixlaas jàng salaatul fatihi